xam nga yàgg nañ ko def defe naa ne juróom-benn at a ngi nii ñu koy def euh, di jàppale école yi primaire ak euh, tout le système éducatif de notre localité euh, ñu koy def avec plaisir ndax xam nga jàng moom bokk na ci li nga xamante ne farata la farata la ndax ñun jullit sax defe naa ne bokk na ci li nga xamante ne dañu ci soññ waaw pour ñuy gën a góorgóorlu ci xam-xam

Il y a également 6400 cahiers de 48 pages, avec cahiers de 200 pages, avec 18 500 stylos yu bleu, avec 6 400 stylos yu rouge. Donc, ce yeb nak, nous entre euh, la trentaine d'écoles primaires, les 3 CM et les 4 lycées. Si je la trentaine, je privées privé et public. Parce que nous avons enseignement privé aussi, je les japonais mieux nous avons seen de mieux, nous ñu def ko fait ci CODEC yi également avec les proviseurs du lycée yi Nous euh, en tant que fils de la localité nous warugar en tant que parent d'élèves, nous suñu en tant que autorité ndax qu'est-ce qu'on am nga ko ci nous nous nga am ko nga bañ ko Nous nous bañ ndax école ñëpp ko bokk école bokk na ci compétence surtout l' école primaire bokk na ci compétence yi ñu transféré au niveau des localités des communes mais li ko transféré transféré ñëpp ci war a jàpp sunu loxo nag yàgg nañ ko dugal ci euh, commune bi yàgg nañ ko dugal ci fànn yëpp mais bii bokk na ci yi ma gën a neex ndax tabax xale mooy tabax avenir localité jamono yi le passé invité woon nañ leen fi doon primé les six meilleurs bacheliers de la localité pour joxe exemple ñu ñëwaat pour defaat li euh, ma ciy profité pour lancer appel à toutes les forces vives de la localité ku nekk loo mën a jàpp ci li ñuy def rek nga jàpp ci kon ñu ngi waaj a cérémonie bi mais li ci ëpp importance rek mooy ce message d'unité de solidarité bi nga xamante ne ñun ñëpp war nañ ci bokk maase ci école mom, vous dee beaucoup def lu baax rek la moi moo beaucoup a buuxante def lu baax muy école ndax loo fi def rek semence la jëmbat la c'est pour la postérité. waaw dañ ko bëgg a matérialiser ndax xam nga jamono yële passé gënoon na fi metti yaa ngi koy fàttaliku muy jamonoy coronavirus bi balaa élèves yi doon reprendre gis nga tout le dispositif bi ñu defoon au niveau des écoles joxe fa thermoflash joxe fa ay gel joxe fa ay masque joxe fa jumtukaay yi nga xamante ne pour gën a sécuriser élèves yi la war kon contexte boobu aussi demagul complètement mais jàng bindukaay la kaye la d'abord

objectif biñ ci séntu dinañ ko am mais li yàgg nañ ko def te fasuñu yéen a arrêté ndax wax naa ko école du dépense investissement ndax loo ci def suba jeexital bi mooy day dellu si waat ci askan metti na trop metti na trop te defe naa ne képp kuy citoyen war nga ci gën a góorlu jàpp ci collectivement ndax dama jàpp ne am na ci une partie boo xamante ne muy les passeurs ñooñu kenn warul ci am ci ñoom yërmande maanaam ñi nga xamante ñuy jël risque encaisser xaalisu xale yi yóbbu leen ci voyage boo xamante ne ay juróom-ñetti fan lay doon man jàpp naa ne loolu dara gënu ko bon ci jëfin ndax dugal ay doomu aadama ci gaal encaisser seen xaalis ndax ñay yóbbu xale yi defuñu ko gratuitement kon defe naa ne ñooñu il faut répression bi mën a tegu seen kaw bu baax bi ci des xale yi ñun ñëpp ñu góorgóorlu ci ñu ne ñun ñëpp ay père de famille ñu gën a xamal xale yi ne risque boobu ñuy jël jaru ko jaru ko ndax bakkenu doomu aadama dara gënu koo for sàmm sa bakken dafa am importance te àdduna tànk demoo ba bejaw jàppal ne li ki sa kanam boo góorgóorloo yàlla mën na la gën a gën a jàppale moo tax ba appel la war bu ñu war a lancé aux familles nañu gën a jege suñuy doom gën a waxtaan ak ñoom sa doom waroo ko bàyyi muy dem rek sa doom sa nawle la sa doom bu xësee ba am yenn at yi sa nawle la da nga war di waxtaan ak moom di dugg ci confidence am ndax xale dafa ànd ak fit xale dafa ñàkk a léeg-léeg nga bañ a comprendre euh, disons la gravité du danger ba tax na loolu yëpp war nañ ci gën a waxtaan li ki des nag mooy les politiques publiques état bi am na yu mu teg ci table il faut que ñun ñi nga xamante ne ñun ñooy yor loolu muy les directeurs généraux muy les ministres muy ña nekk à la base nous gëna communiquer ci programme yi nga en place Nous fexé yi gën ci encadrer nous leen fekk fa ñu Nous ñu gën jappalé Nous loolu ñu il faut que ñun ñëpp les autorités publiques ñu gën gor gor wayé c'est d'abord la famille ñoo wara a gor gor lu ba loolu baña am ndax képp ku francs mm. wala 500 000 francs jox ko passeur je me dis que nous devons discuter à l'échelle familiale pour éviter l'autre. huit jours nous devons ko ci Nous ñun ñi xam de ce ah, duñ condition de voyage yu mettez non. di dem ci géej gi di dugg ci gaal goo xamante ne xamoo egg wala devons loolu mu ngi mel rek risque bi ci il faut ñu gravité expliquer yi ñu consensus national autour de cette question bañ ko politiser mu dem benn question boobu c'est une question sociétale la boo xamante ne dañ ko war a waxtaanee cerner les contours jëm ci trouver ay solution waaw xam nga président Macky Sall euh, defe naa ne dañ ko war a gërëm di ko sant Sénégal tey dafay traverser moment yu difficile leen ko jamono yi passé bind naa ko sax ci benn article pour rappeler nit ñi le contexte que coronavirus mu ngi ci àdduna bi démb dégg nga France soixante mille cas la ñëw États-Unis génn gu fa cas communautaire yaa ngi fii ba léegi ak yeneen ak yeneen ba pare perspective économique mondiale yi nekk ay perspectives yoo xamante ne dafa xaw a compliqué compliqué dëkk nag boo tolloo ci situation yu mel ni li nga war a njëkk a jéem a garantir mooy la stabilité te président de la République loolu moo ko yitteel fexe ba sénégalais yi nekk benn pour mën ensemble gën a song le véritable combat du développement du pays loolu nag président bu koy def képp kuy patriote képp kuy acteur de développement képp kuy acteur politique da ko war a refaire politique kenn dugg ci pour kut ko kut naa falu wala naa def li bu dee sincérité politique rek la da nga naan na yàlla na affaire yi dox nu mu gën a doxee mu gën département de Mbour président République yàgg na fi def ay teraanga yàgg na fi jàppale ay responsable yàgg na fi nome ay responsable pour que ñu gën a mën a jàppale askan je pense que département de Mbour euh, Sénégal 45 département la am jibi membre du gouvernement bi battu quarante 45. kon département de Mbour seddu na wala seddul jox nañ ko wala joxul ci ay responsable C'est moom dafa ne kenn ministre directeur de cabinet du président public mu jóge ci département nga am ministre du pétrole mu est ci gouvernement bi nga am ay ministre conseiller nga am ay directeurs généraux je pense que département le président gën na ko jàppale moo tax bu ñu politiser les questions le plus important c'est pas nos personnes li ëpp solo du suñuy les ñun li ëpp solo mooy trajectoire bi dëkk bi jël nan la ñuy fexe ba baral ko ensemble ensemble la wax ndax benn loxo du tàcc kenn mënul def lépp moo tax Premier République li mu def dañ koy rafetlu di lancer un appel à tous les responsables autour de l'unité unité autour de qui du chef de l'État unité autour de qui du Sénégal